sëriñ bi àdduna bi fan yi nag yëngatu na ndax am na lu ñu fi ràññi feebar bu bees bu fi dugg si ci àddina tàmbali bër ki démb dugg si na Sénégal muy feebar bu doy waar ñu koy tuddee coronavirus wala Covid 19. lu tax mu doy waar ndax dafay loo xam ne lii mën na laa dal mu toog ci nekk ci sa yaram ab diir doo ko xam te di diggante boobu mu nekk sa yaram mën nga wàll keneen koo xam ne kii xamu ko xamuloo ko feebar boobu nuyoo joxante loxo ñaq gu jaxasoo tisooli yu jaxasoo loolu lépp daf koy véhiculer moo tax ñuy wax senegale yi ñu bàyyi ci xel ndax feebar boo xam ne bii mënuloo ko gàttandoo ndax ñàkk bu koy tere amul garab gu koy faj génnee ko làmbatu rekk moo fi nekk ba yàlla def jàmm ku ne dugg si na sa kër nga war cee bàyyi xel ñuy sàkku ci askan wi ñu bàyyi xel ci lépp lu ñuy def ndax sunu boroom musul ñu ci feebar boobu ginnaaw bi ñu waxee sëriñ bi mu ñaanal ñu ci ñaanal ci réew mi ñu mucc